jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou wér ma dem yàlla gën a sawaat sunu kaw ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi te wér te di ko ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacké di ñaanal nag Serigne Saliou ndigal Thioune sunu sang bi yàlla na fi yàgg te yàlla ak wér mbokki taalibe bi ngeen séenee lii yéen a ngi fii ci nga xam ni fii la ñu euh, nag Serigne Saliou ndigal Thioune fii la ne ah ngir kat Serigne bi tey ñëwoon fii doon ko xool si nag yi nag ci lim xamuñu sox ni mu toll ndax nag yi gis nga ni xeetu nag yu rafet nag yoo xam ne ñu ngi ko jëndee ba Mauritanie nag yi suur macha allah jëm ci màggalu Serigne Touba gi Serigne Saliou Ndigal ak ñi mu àndal waa këram ñëwoon tay ngir xool si ko ngir wàaj tay kat da xam ni feek fan yi néew ñu war koo dàq bu dugg si Touba jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké ah fi mu ne nag li ngeen gis nag premier convoi bi booy séréer fii nga nekk nii lii nga seen ba xamuñu ni mu toll premier convoi fi mu ne gis nga fi mu ne ni mu toll yaa ngi seen nag yaa ngi seen nag yi nii ñu rafetee yaa ngi seen ah, a li premier combat a ah deuxième ma euh, deuxième a ngi ñëw de ah? mooy euh, loo yaakaar premier combat ne ni deuxième a camion yaa ngi dikk de yàgg baax camion yaa ngi ci yoon wi di ñëw de sëñ bi noppeegul de waa li ngeen ko séenee ah yàgg baax waxal ak gars yi waa Njurul TV en direct. ah xam nga ni xam nga ni non duñ fa toog sax di xaar nag deuxième combat. dara jëy Serigne Saliou Mbacke kenn du fi toog di xaar deuxième combat lii doy na sëkk lii Sénégal gépp mun nañ cee ku kuy cantaakoon mun mun nga ci màggal wàcc ma daan naa la wóorul ku daan kaw ngay féete bu di tànk ci réew mat fa gën ko gën sëñ Béthio nii la daan def jaaraama Adra Fall ak ñi mu àndal sonn ngeen gàcce ngalaama barke Serigne Saliou Mbacke ngeen ànd ak xaadim cuun sonn lool sonn lool ku ne xam nga ne lii lii ku ko jégil ci ndox mi ànd ak moom lii nekk fi bu waxtu bii jërë jërë ngeen jëf barke Serigne Bamba xoolal ma Serigne Saliou Thioune ndigal ma nga ci biir oto ba ànd ak ay rakam ndeysaan kan moo koy dawalal mooy Seydina. laa <laughs> ilaaha illallaah jaraama Adra Fall mais lii kenn mësu gis fii tooj na xool sedd na góy barke Serigne Saliou Mbacke Sénégal te daakoon nañu xam ne yeewu leen man te xam naa ne sax yeewu ngeen waaye nag ah du tere nag sonje rek mun ta ñàkk lii daal booy séeréer mbir maa ngoog maa ngi lii daal lii daal jeex na du lu ñuy wax du lu ñuy werante du lu ñuy nangam kon bu soobee Serigne Saliou Mbacke incha allahu rabbi na cant ah. ajjuma bu soobee Serigne Saliou Mbacke mu fekk nag yëpp ñëw premier ba baa ngi nii camion yaa ngi ñëw ñu ngi wàcce bu soobee Serigne Saliou Mbacke samedi bu soobee Serigne Saliou ñu dàq nag yi nag yi génn ku ci sa wërsëg nekk man jàpp naa ne fu waaj nekk di nga am kon na ñëpp ñëw jënatul maxwaa jërë jëfati jërë jëfe Serigne Saliou Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou yàlla nañu ko yàlla fayal sëñ Mountakha Bachir jërë jëf jaraama Serigne Cheikh Saliou <laughs> waaye booy séeréer lii lan la ni lii da xol sedd na guy jërëjëfati waaye booy séeréer kenn du nag yow nag ah booy séréer nak kenn du yow kenn du yow nag booy séeréer kenn amul sa pay barke Serigne Bamba yaa bëgg sëñ Béthio ñii nga daan defal sëñ Béthio nii nga daan àndeek moom tey nga ñëw ànd ak Serigne Saliou Thioune ndigal def ko ci kaw ndigal waaye booy séeréer jërëjëfati booy séeréer daal kenn amul sa pay kon nag sëñ Béthio moom am sa fay yàlla na la sëñ Béthio fay